yëpp yëpp lii mooy est est c' est jeune leader de la Médina tey mouvement bi lan moo tax mu juddu c' est parce que tey Médina Bamba dafa am fu mu ko teg te bëgg nañu tey continuer cheminement boobu te cheminement boobu noonu c' est maintenant que ça se prépare parce que Bamba ba mu duggee dans le champ politique ba ñëw Médina loolu c' était avant même 2014 te loolu noonu la togg moo tax 2014 dafa ñëw ñor. ñun nag si loolu lañ nekk parce que tey dañoo gis Bamba lu mu def Médina te bëgguñu keneen ñëwaat toog di ñu yàqal suñu Médina moo tax ñu teel a jël notre avenir en main ba pare ànd seeg monsieur le maire dans dans cet cheminement parce que après Bamba Fall tey bëgg nañu njabootu Bamba Fall nekk fi te incha allah njabootu Bamba Fall moo fi nekk pandant 40 ans incha allah dans la commune waaw jeunesse bi di leen wax ni rek ñu def une synergie une synergie autour de Bamba Fall parce que tey parti yu bari nekk na fi man ba ma fay man man man man je exemple sur mois même ba may ñëw book Médina moo taxoon may ñëw am na ñeneen ñoo xam ne parti moo leen fi dugal am na ñoo xam ne liggéey moo leen fi dugal mais cette synergie moo am solo parce que tey munoo xool ni kii àndul ak man rek waru ñëw liggéey si municipalité bi Bamba day jël sax ku àndul moom bu gisee si yow ay capacité da lay jël te loolu moo am solo parce que boo taxawee pour liggéey force vive yëpp da leen war a jël te boo jëlee force vive yëpp loolu mooy loolu mooy waral tey sa liggéey mën a baax mais munoo ni politique laa nekk kii àndul ak man du ma ko jël liggéey non non Bamba ne marche pas comme ça boo duggee ci municipalité bi di nga gis tous les partis du Sénégal ñoo xam ne am nañ fa ay représentants te am nañ fa ay employés te loolu tey moo am solo.